Seex Mustafa santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci bismillahi fi ak mbokk yi niñ ko waxee woon euh, sànq rek ci liñ doon doon dégg tey ñoo ngi fii ci kër sëñ Moustapha Mbacké Assouboury euh, président fédération des groupements religieux ñu fekk fi nii Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké euh, fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci dunduk Cheikh Mouhamadoul Moustapha ginnaaw sëriñ tuba waaye dañ koy bàyyi kàddu gi rek mbokk yi Serigne bi nuyoo ñu doog dugg ci waxtaan yi Serigne bi ñu ngi lay nuyu. allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar. dul Muntaxa mi nga xam ne moo fi toog jotaay bi Serigne Touba ñaanal ko fi mu yàgg fi loo tànd ak di ci teg sëriñ Ahmadul Mokhtar Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha. Serigne Touba dafa am ay ndénkaan yoo xam ne euh, joxoon na ko Cheikh Moustapha. waaye balaa ñu agsi ci loolu am loo xam jotaay boobee maam Thierno Ibrahim dafa moo sox toog euh, jotaay mm, dajale mag ñoom ñëpp mu ne gees sëñ Modou sëñ Fallou ak sëñ Bassirou daana leen ah ñun de fexewoon nañ ba suñ mag gërëm kon yéen fexe leen ba seen mag gërëm leen mu wax sëñ Mëndumbee daan ne ko la la sëñ daan def loo euh, nga di ko def euh, wéy ca te di nga ci am fay fay sëñ Tuubaa mu ne Cheikh Moustapha daa nekkoon na nga lu te xam ne bul xëccoo lenn lépp loo war am dina la fekk si fii mu ne gerte Ibra daa nekkoon ne yow Ibra Fall luñ la wa luñ la luñ la sant mu ne xanaa ne aw yoon mu ne ko wanal yoon bi Cheikh ba daal di jëpp boppam sëñ Moustapha bi loolu amee nga xam ne Cheikh Moustapha nekk na xalifab sëñ Touba ci 1927 am liggéey ak ndénkaane yoo xam ne sëñ Touba moo ko euh, moo ko santoon ndax sëñ Tuubaa daf ko waxoon bindoon cib kayit bàyyi woon ko fi xamal ko ne ko kat bis boo sama sama jëmm ji boo ko noppee gis nag ma yóbbu Tuubaa loolu wax nañ ko sànq xamal ko ne jumaa jaa ngi nii ngeen taxaw ci te bu ngeen ko defaru tamit malaaka yi ñoom ñoo koy wàcc ci buñ ñu wàcc daañ ko liggéey liggéey wurus daanaka njaboot gi nanga leen taxawu ba nga xam si ne maanaam Euh, bis bu euh, taxaw taxaw goo xam si ne bugguma kenn ëllëg di wax naan bu fi sama bàyyi nekkoon naa am nangam nga xam ne boo xoolee sëñ Touba njabootam ñi ci magoon ginnaaw Cheikh Moustapha moom sëñ Fallou sëñ Ba ak sëñ Bassirou su ma juumalee sëñ Abdou Borom Dër bi boobu mi ngi toll ci ñaar nga xam ne kon ginnaaw sëñ Abdou Borom Dër ñëpp daanaka mën nañoo xam ne amuñ woon ñaar nga xam ne ginnaaw raay bi agsi na ñu nekk ci liggéeyu jumaa ji Euh, te su ma jumulee le 4 mars 1932 lañ teg xeewoon te bi ñu teg xeewoon nag ñii may bëggalim ñoo ko fekkee woon muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Bachir sëñ Massamba euh, commandant Diourbel ak coup chauffeur am ñii ñoo fekkoon bi ñu teg xeewoon 4 mars 1932 Cheikh Moustapha ci la tàmbalee liggéeyub jumaa ji mën nañu wax ne liggéeyub jumaa ji sax bëriwoon na lu ko gàllankoor. bokk na ci li ko gàllankooroon mooy waa administrateur tailerie nga xam si moom moom lañ signé woon contrat biñ ko signé contrat ba noppi mu am ay yëf mu ca def Cheikh Moustapha wutaat keneen koo xam ne moom moo koy liggéeyal tegaat euh, nga xam ne dafa mujj defaat beneen contrat bi nga xam si ne maanaam woo nañ leen ca ca ca Ndiaye ca Kaolack tribunal bi ca Kaolack Cheikh Moustapha àndoon nag euh, euh, sëñ sëñ Modou Moustapha Fall ak sëñ Moussa Moussa Euh, fekk ak benn mag murit moo xam mu baax moo xam ne si ndeysaan xam naa lañ naan xaw réew tubaab rek ndax kookee daa waxoon ñëw ba ci Cheikh Moustapha ne ko ah tubaab bi de bebo nga mëntinu ko ay mbiram ndax fi mu jaak sa baay moom kenn nattable wu ko Cheikh Moustapha xamal ko ne ko kat euh, bu ma sampoon tànk ca kamaraan far farma nguur France gépp bu ñu ci jafandikoo di ko xëcc duñu ci mën dara te sama ñaari tànk laa samp loolu la Cheikh Moustapha wax bi loo amee ñu dem di dem mujj gi euh, guerre éclate guerre deuxième guerre mondiale 1939 45 euh, euh, ci la joole nga xam ne taliré officier la woon ci armee ba ci la demee France fekk na lu juddoo Cheikh Mouhamadou Fada daa waxoon Cheikh Moustapha na ko yéen dangeen a wookaa man bàyyi leen ma ma kii daal di laaj Cheikh Moustapha weccat mu dem ci xamlub sëñ Touba ba ñaan fa bi guerre bi duggee officier tànn ci bi mu demee France ca lañ ko reyee ca fond bu njëkk ba nga xam ne fa la yëfi jaare fay ñu nekk ci liggéey bi ba nga xam si ne euh, mën nañoo wax guerre bi ak xiif bi metti woon ak crise beeg yëpp bokkoon na ci loo gàllankoor waaye Cheikh Moustapha bi mu fi jógee euh, liggéeyoon na ko ba nga xam si ba ba woon ko waaye jotu caa teg nag ab solo loolu mu na ko liggéey bu mag bu am solo boo xam si ak yeneen liggéey yoo xam ne bokk na ci tey jii échelle Muharram gii ñu nekk nga xam ne Cheikh Moustapha da ci amul ndigal sëñ tubaa te ndigal loolu sëñ Touba mi ci benn këyit këyit boo xam si ne bi nga ko bindee ba noppi da koo jox euh, Cheikh Moustapha ci teewaay sëñ Massamba bi nee ba 1937 euh, Cheikh Moustapha laajte ana sëñ ma Massamba ñu ne ko sëñ Massamba dafa tukki ñu ne ko dem leen seetali ma ko. ñu woolu eh, sëñ Massamba si am sëñ Massamba accès ci tënk rek ndax day xaw a gudd euh, bi mu accès ci fii ñu nga xam ne si ne mooy fii fi la fi la ci bërëb bi ci jumaa ji ñoom ñaar ñu biñ tasee foofu Cheikh Moustapha won ko lettre ba sëñ Massamba xool ko xàmmee ko ndekte lettre boobu sëñ Tuubaa mi ngi ci bindoon ne guddik Ashura na mu xaram Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahlu bëna ak malayka yi dañuy fanaan si Tuubaa képp koo xam ne fanaan nga Tuubaa bëse da nga set ci bàkkan yi nga juddoo woon loolu mooy guddug solo nga xam ne kon fii ñu waxee nii yow tey fii ñu waxee nii nii rasulullah sallallahu alayhi mu ngi suñu biir ahlu badar ñu ngi suñu biir malaaka ñu ngi suñu biir fii fi may wax ak yéen ñu ngi fii ñu ngi teew fii kon képp koo xam fanaa nga fa bësade ak ñoom ca la ca la nga war a nekk danga nga ci ci bàkkaar na nga juddoo woon ñu naan ñu naan nag di fekk fekk ay ati ati at waaw incha allah loolu ci euh, nga xam ne kon bokk na ci liggéey Cheikh Moustapha taxawu euh, euh, taxawu rakkam yi taxawu tamit ñi nga xam si ne ñooy Cheikh Sëñ Touba yi fi nekkoon ndax àggoon na ci sax ne bu ma saan toog fii ci Touba bu nit jógee ci njàmb ñëw di ko siyaare si sax bu ko joxee joxe addiyet Cheikh Moustapha lim ko la njëkk a laaj ne ko ndax jàng ci Darou Mouhty suñu bàyyi ci yaanu bu ko xamal ne ko jotu faa jaar danaan ko da ko joxe addiye ñu ne ko demal ba ñàmb ba foofu ba ca ba Darou Mouhty nga nuyu ko jox ko addiye te boo ñibbisee bu nga indi loxo neen loolu ci liggéey bu Cheikh Moustapha la woon mu liggéey bu am solo boo xam ne si ne euh, man buñ fi toogoon sa yaakaar naa dañuy fanaan waaye comme waxtu fi tof ñoo xaw xoj moo tax ñu ne nañ ko euh, ñu tënk leen ko foofu rek incha allah xam naa nañ ci wax ci gën ci yeneen jotaay incha allah bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaana Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér te coow li nga xam ne moo am ci réew mi di coow loo xam ne doy waar ñaan suñ boobu mu yemal ko fi ci mu gën a gaawee te lu am nañ ci yaakaar xanaa ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka nga yoo ci Moustapha.